tey lu xew ah tey au calme bi nii nga ma may de. non tey tey mooy jour bu ma gën a neex tey. bokk na ci jour yu ma gën a neex waaw. lu tax ndax tey moom wax dëgg yàlla Barça mbaa Barsaq rek. Barça. mbaa Barsaq. gis nga sama saaga yi nii booy man mënu nekk ci kër nekk jeune mënu maa di jënti dara. lu ma wax duñ ma gëm nekk ci dëkk bi saa waay lu ma lijjanti du sotti saa waay ma toog dajale sama xaalis am quatre cent mille francs pour def lan aw aw ci yoonu ndox bi dem dugg gaal duggu gaal dem sama yoon yow yaay dugg gaal yow Pathe waaw ah, yow kon kon comprendre non boy yow da am quatre cent mille yow am na quatre cent mille ak quatre cent mille doo ci jéem a def dara mu jur quatre cent mille lan laa koy def fii lan laa fi nekkee woon saa yu ma see pari foot benn équipe looloo ma gën a metti saa yu ma joué benn équipe ren da ngay vingt 23 mu 22. nga joué 22 mu 23 nga joué victoire 0 0. gis nga sa sang nga joué impair mu pair du ma ba. wuy ma booy bàyyi ma rek système bi ngay joué moo baaxul. gis nga benn 100000 francs boobu noonu xoolal mën nga see amaat beneen 400000 benn 100000 francs bi comme que yow pare fut nga gëm ay wax yoo xamante ni yow moom da ngay. inventé booy xam nga lan la. man tàggoo naa gàlle ba pare nee naa sama waa gàlle damay dem saint bàyyi ma rek ma dem. kat mooy dem Saint-Louis man yow de man maa lay siiwal. xoola booy xoola. man maa lay jaay maa lay kalaate. bàyyi ma ma dem l'essentiel mooy soo toogee quatre jours déggoo ma. mooy nga commencé ket. pour nàkk guro tàndarma sama dënn nag damaa bëggoon dinjeer. pour nga def ci dinjeer nga def ci dinjeer. côté da gëm ne da ngay dee nii. ah yàlla xam maa ngi daal si yoon si yoonu ndox. laa mais yow dégg nga gën a focaliser wu focaliser wu ma ko xam nga la moo tax. ah parce que ku fay Dakar Gorée. su gaal gi xaroon it loolu déranger wu ma. kon kay bul xalaat ay dee. waaw waaw non xam nga lan la damay bañ a jommi si kii gi mais pour gaal gi dara moom. loolu moom man mun naa fay. pare doo dem. baax na. non doo dem man xam naa ne doo dem. ba su subaa ngi suba di nga fi ñëw boo fi ñëwee suba ndax di nga ma fekkoon man tàggoo naa ba pare. non mais yow man lenn mooy sama problème yow. yow man lenn mooy sama problème yow yow yaa fal président États-Unis yaa ko fal yow yow da nga am ay milliards mille milliards yow yaa fi créé ay vaccin yooyu yëpp yow yaa yow yaa ko def yooyu yëpp yow la yow léegi ay quatre cent mille francs ngay dajale pour dugg ci gaal. da nga am possibilité jaar ci ay avion. booy nekk nag lu ma doon expliqué yëpp ay gént la woon. ah da nga gént waaye dama yàlla man daal maa jékki rek booy nekkee booy ay gént la woon man loolu jaaxal na ma torop xam nga ma gént booy man gént naa nekk fu ne booy gént naa tax booy biyoon sakira nekk sama jabar kanta man waaw ma gént booy marimar nekk sama jabar booy ndeke loolu lépp ay gént la woon booy xam moo tax nag gars yi bi moom tukki rek ngir tekki teral ndey teral baay képp cëm képp. instant mooy loolu nag du ma la téye quoi. ah, ah. doo ma téye. Hmm. doo tax xaw a ñàngal nii ma xaw a téye. ma dem instant moom boo demee da nga war a dem boo demul danga nga war a dem. ok amul problème. yow kay boo ba fan ngay départ. man fii laa war a départ Mbour. Mbour waaw. instant am ngeen gaal ba pare. am nañ gaal. kañ ngeen départ gaal. la ñuy départ. tey ah? waaw léegi dama bëggoon yow nga joxaale ma ko quoi parce que day sànq lu ma sàngoo. kon kos bi waaw. bii kos yaa ko bi maa jox boy. waaw bii man maa la ko abaloon ngay wax nga yaakaar man xaw boy lii man maa la nga sol ko dose après man sama kos nga ne ma bi ma la di yaax sama der man mënoo yaax sama der. ah ok wax nga dëgg. oui yaa ma ko aaloon. de. léegi. waaw ah, léegi yow da ngay dem. kan wow no boy deux heures du matin damay dem boy. eh sama dignité mooy ma may toogaa Sénégal. très bien man dama la man man ma la. Ah. mooy man yow danga gëm sa bopp. waaye yow. da nga gëm sa bopp. wuy ma Barça wala Barça. état bi xam nga lan laay préparé. waaw dem jëndi ñu mburu bu wow bu bëri. dëbb mburaake. ah eh, mooy gën a baax. ci ndox mooy gën a baax wala biscuit. xam non mburaake baax na jënd gerte. gerte kem gerte kem. waaw. Oh, gerte kem daa doo caabaay. waaw man caa garaawul jënd gerte kem bu bëri. Hmm. jënd tàndarma bu bari ku ma ñaan ma ne la mayu yow yaa koy lekk après waaw koy lekk parce que 4 jours lañu war a def si yoon bi. 4 jours kan moo la wax jours. dañuy xam nga ñu suñu capitaine bi lu mu wax. day aw États-Unis bu ñu gis lampe yi ñu ne wëëy. après ngeen dévier ñu dévier mu aw Colombie ba ñu gis géej gi ñu yuuxu mu aw France ba ñu gis géej gi après xam nga France ak Espagne tout droit la. waaw doo jàdd nenn. ngay jubal tout droit. après mu def tout droit quoi mu def tout droit ba ci. kii bi yow ngeen gis États-Unis nii muy dévier nga koy nangu yow. booy baa ma dugg Espagne États-Unis vingt ans ngay toog doo am këyit vingt ans te man dèjà fii laay jugee di dem balaa maa egg man am naa kayit ba pare defaral lañ ma këyit ba pare nationalité espagnole. yow waaw defaral lañ ma nationalité. kan moo wax defaral. kii nu mu tudd. sam benn xarit bu nekk woowu. mënu la woon paasam nga jaar ci. non Busquets xam nga ko. Busquets su mel ni bii football Barça bii football Barça. waaw sama cousin la gisoo nu mu njoole. kan Busquets. sama cousin la sama cousin la de defaral na ma këyit nationalité boobu état bi damay egg rek damay dugg rek xoola këram laay dem directement damay egg rek dem këram jël ko. nga dëgg de boo eggee pour pour kii bi booy moom est-ce que corona wu. man damay man ma jaaxale fi mu toll nii nii mooy lool ah oh, fa tey xoolal bàyyi xooyu ma lii nii lañ koy dindee lii. ok ah. booy lii li ma ko lekk Casamance. wóop wóop lii lii dama ko doon lekk foofu booy comme c'est pas possible. lan nga doon lekk musuwaar koy togg ba mu ñor waaw. koy ñandoo rek lii dama koy lekk. man man man man man man man man sama ànd bi may ànd ak yow man sax ba man man xaaral ma mel na yow xaaral ma ñëw nga defal ma ñaan kan defal la ñaan yow man ñaanal wala de amul lenn ma la mën a ñaanal ñu mënuma laa ñaanal dara yow mën nga lépp yow mën nga lépp yow yow jàng nga jàng nga am nga xam-xam maestro nga am nga xaalis am nga lépp yow mën ngaa ñaanal sa bopp mën ngaa paase sa bopp mën ngaa defal sa bopp non non pour xaalis xaaral moo na sax pour xaalis baa ngi ni fii laa ko denc fii laa dem sama yaay moom ma ko jox ne ma booy duggee nga naan kulli ba ndax nga sànni ko ci géej bi nga defaat ku li fokkatin mokkatin gaa yi man ba ndax ku li fokkatin mokkatin gaa yi man ba ndax nga sàddi ko ci géej dara du la daal lii kii la lii kii la pour maanaam su affaire bi di daw su su nekkee ci biir géej gi fu ñu toll su ma bësee su ma tàppee fan la ñu toll mu bindal ma. comme genre GPS comme genre GPS léegi daf may bindal fu ñu toll nii lii lii dañ ma koo yónnee. xaar moom la yeneen yi ñu non non man xaalis nga ma waxoon nga may wante yi ngay wax nii yëpp. xaalis xaar moom na sama xaalis bi booy. moom na sama xaalis bi xoolal xaalis baa ngi nii gis nga bëgguma bëgguma ubbi fii nga gis nga. waaw ah, am na dëgg la gis nga. am na dëgg la xoolal xoolal xoolal. yow li nga yor nii bariwul. cent mille deux cent mille trois cent mille quatre cent mille. alma cent yi. cinq cent mille. alma cent yi cent yi laa wax nga alma. six cent dix mille alma cent yi. 610 900. al ma 100 yi waaw ma may la 900 yi pour adaaya 3 jours day saayin say adaaya bu ñuy waxtaan appel whatsapp nga koy vidéo di ma ko wan xaaral ma jox la fil bii. ba baax na non nga ba ci pour booy. nga ba ci baax na waaw baax na. xam nga ba baax na jërëjëf. jërëjëf booy di bàyyi ma jox la ko nga nga ciy branché seen kiiw nga branché ko seen lorange bi heure boo branché di ko branché ci kii bi rek sa xel bu demee ci man nga ne non sama commune ma ma joxoon kii bii. ay fil nga may jox fil. fiil ba tey fiil nga may jox fiil ah. sama gel bi xam nga lan laa ko jox. Ah. soutien. kan soutien. Ah, mais kooku man dina ko utiliser. soutien laa ko jëndal. Ah, jox ko ko pour ma ciy xool. kooku dina ko utiliser dina ko utiliser. amul amul problème sama gars nga. man lan la xoolal Patey. waaw man doo xaaral ma tàqalee lii boole li nga ma ciy xool. yow boo yow say mbir jar naa xoolaat de. sa wujj yaay bi moo ko moom. sa wujj yaay wala ut si sa wujj yaay. kan moo ma ko may cadeau dama ko gis xam nga fer man fer bi daf ma neex. xanaa dala xam naa rek mu takk ko ma ne ko umba tàndatu sa fer bi da tekki rek may ma ko léegi dama la koy takkal nii. ko sa bopp lii dina la aar ci ndox mi. waaw léegi léegi léegi garaawul heure boo toogee sa tuñ bi kii waat léegi kii la li problème góor. pour maintenant ci ndox bi ngay dugg instant eh, yii yaa koy gën a yittewoo ngelaw li bu la ëffee noonu sa tuñ te mu teppee ko. ok yi nii yëpp baax na merci jërëjëf. waaw kon ko man nangoo maa jox xaalis te ko yor xaalis kay. léegi ñaata nga soxla. noo man 100000 rek laa soxla wax naa la 100000 laa soxla. waaye Sénégal nag ngeen xaw a mun a leb trop. lebu ma la de dama laa ñaan boo mënee may. ñaan waaw booy yow cent mille francs kan moo koy may jamono corona bi ah. boy xaalis moo yoroon yëpp leva na lebal naa ko gouvernement Sénégal. c'est que problème bi mooy man lenn moo ma neex si yow o yow da ngay xànju ah ne yor nga yaa fal président yi ba pare après man su ma la laajee nga naan ma ay ay ay ay kenn. ma ah, léegi amul problème mënu mais wax dëgg yàlla. Hmm. ah mille huit cent moo tool si sama xaalis mun naa 1800 waaw ah. paquetu biscuit ñaata lay jar. paquetu. biscuit booy te booy loolu yëpp jaru ko garaawul demal man maa ngi dem man maa ngi dem préparé ji quoi damay dem préparé ji tàggoo aw kër soxna si yaa ma gën a ma dem dégg nga dangay ma léegi ay une heure toogal teg teen. waaw. Ah, That's what I do. Wij gaan die niet rek, oude vis zag doen aan het Google. Hé, aan wat top, aan wat top vieren. Zie wat zou hij man nog naroon nañ tam mais suñu gaal essence bi dem nañ ba noix di bu mu jeex ñu retourné waaw loolu loolu xel